الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات wa salaatuhu wa salaamuhu ala sayidi saadaat sayidina wa maulana muhammadin man ruuxuhu qibulatul arwaax wa jismuhu kaabatul ashbaax wa ala alihi wa saxaabatihi dawil islaax wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmin yuxsharu fiihi al ajsaadu wal arwaax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 te benn nuyoo mënta doy walis ko ma tibboo ko ci sama xol jëme ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi di del ci kartanal yàlla fas yéene sof li ma doon sosaak ak yow ci waxtaan yëpp paase rekk ma nekkoon ak yow ci sëyi yi ñëwoon ak yow ci wàllu labat ga ci wàllu xool ga ci xar-xaram yaag ca ténk ya ci wàllu listixaar ga ci wàllu laaj ko ay dëkkandooram ak ñu ko jege te ñu maandu ba duñ yokk ñu nekk ñu maandu ba duñu wàññi ndax li ëpp ci nit ñi suñu bëggee duñu wax dëgg suñu bañee duñu wax dëgg bëgg ba duñu wax dëgg mooy luñ bëgg bu ëppee rekk ñu yokkal ko lu fa newut waaye li ñu bañ tamit bu fesee rekk ñi wàññil fa lu fa ne kon mbaax daal mooy koo xam ne bëgg du la teree wax dëgg bañ tamit du la teree wax dëgg waaye am ci ñoo xam ne buñ bëggee duñ wax dëgg buñ bañee tamit duñ wax dëgg waxoon naa la li ci aju ci laajte information yu jëm ci moom ak ña ko jege waxoon naa la yoon ni koo xamee ne jigéen lay doon ku ko mën a riisu yooyu yëpp ñëwoon naa ci ba ñëwoon naa ci wàllu nawle moo xam kuf ut taam la wala kuf ul atam te mooy nawle gi mat ak gi gën a mat waxoon naa la gu mat gi rekk ñaar la ngay jullit muy jullit ngay gor muy gor rekk nawle ngeen gi gën a mat gi nag wala la ca lu bëree bëri te lu jar bàyyi xel la loo ca sàggane gis ko ca sëy ba te mooy bokk raasoo bokk ay waaso seeni situation xaw a tolloo ngeen bokk palaas bu ngeen dëkkee buy ca kaw muy ca kaw ga buy ca teeru ba muy ca teeru ba buy wàccee am tamit na fekk nga jëlee fu gën a suufe yóbbu fu gën a kawe ndax li ëpp ci jigéen ñi ñu wàcc yéeg rek rawatina jamono ji jigéen koo wax ak mu ne la tabax ba mu kawe rek nga dégg ngay wax kon koo xam ne lim gëm mooy tabax ba mu kawe soo ko wàccee ca kawem googa noona bëgg koo yóbbu fu gën a suufe tamit du sotti dana feeñ ca sëy ba dana la nuyu nag ca ngoro ga yooyu yëpp mag ñi dañ ko doon bàyyi xel Seydi Ahmed Tijani Cherif bi mu demee Faas barke ba ñëw wuy ko ndeysaanam waa Faas ya taalibeem ya nekkoon foofa di borom barke ñu jël seen doom yu jigéen ya bëgg koo may doomi Cheikh na Tijaani ya Cheikh na Tijaani ko xam boppam la ndax xam-xam yëpp bi ci ëpp doole mooy xam sa bopp ñaareel bi mooy fexe ba xam sa njaboot mu ne leen sama doom yi ay kaw-kaw lañ maak ñoom ñu nga dëkk fële ci àll ba dëkk bu ñu tuddee aynu maadi mooy suñu rotuwaayu bopp ma nga nekk ca région bu ñu tuddee laxwaat ci Algérie dend ak dëkk dëkkab àll bu ñu tuddee taaj fu mut kon ñun ay kaw kaw lañu te yéen ñi fas ay teeru teeru ngeen su ngeen bëggee jël seen doom yi jigéen ñi xamuñu dugin dundinu kaw bëgg koo may sama doom yi nga xam ne ay kaw kaw lañu ñaar rekk a mën a am benn ñoom ñi loru wala yi wala ñoom ñi lore suñ leen yóbboo ca kaw ga sonal nañ leen kon lor nañ leen ndax xamuñu dund baag la ca aju suñu ñëwee tamit jéem a yéeg ak ñoom ci seen kawe googa ñoom tamit yégguñu foofa ca waxin waawaa ñoom tamit dañuy mujj loru bàyyi leen sama doom yi dem ci seen mbokki kaw kaw ya ca àll ba ñu takk fa ba mujj noonu la Cheikh na Tijaan yi def su ko defee kon maanaam loola lépp sharia da koy jàngale pour bëgg maanaam ñi gën cee mën a bàyyi xel ca wàllu woowa waxoon naa la ko ca sëy yooyu nag boo demee bay takk sa nagule ci kuf ut taam ak kuf ul atam takk koo xam ne listixaar ga dëppoo na ak yow takk koo xam ne bi nga laajee xibaar ya ca ña ko dëkk moom wala ña ko jege wax nañ la ca lu la doy takk koo xam ne bi nga yónnee sa yaay wala nga yónni sa rakk wala sa mag wala sa xarit mu nekk ab jigéen bam mu ko riisoo lam la wax ci moom tamit doy na la ba mu gisee la mu mënta gis tamit lam la ca wax dëppoog naag yow na la wér na nag sëy boobu ci ñeenti ponk dong ci lay ci lay mën a takku sëy ba doon mën a wér kon bi nga paree ngir takk sharia na le d'abord na nga takk ku takkuwu ña takkuwuut mu limal la ko ci fukk ak juróom-ñaar ña nga déggee ke ngi takkuwu ña mu ne tamit ba ngay takk ku takku seet ci koo xam ne man ngaa ànd ak moom ci nawle wante nga xool ko ba pare mu ne kon d'accord na mu des nag léegi gannaaw bi nga ci jubloo nag nga war a dem takki mu ne nañ ko takkee ci anam gu takkuwu anam gu takkuwu googa muy ñeenti ponk la sëy mënta wér mukk ci lu duhul ñeenti ponk ponk bu njëkk bi mooy sëy manta wér ci lu dunul kilifa ñaareel bi say mënta wér ci lu dunul can ñetteel bi say mënta wér ci lu dunul seede waaye tamit say mënta wér ci lu dunul baat buy tekki may nañ la ñaareel bi ak baat buy tekki nangu naa li ngeen ma may ñu koy tuddee siixatu ci fuqahaaw yi ñeenti bu ñu dëppoohee ci mazhabu Maalik rekk say ba wér na benn bu ci nekk nag ci ñett ya alquran tudd na ko siixatu ba ñu déggee ko ci li alquran tudd alquran tudd na kilifa kilifa googa alquran tudd na ko alquran tamit tudd na can alquran tudd na seede tudd na kilifa fankihuhunna bi izni ahlihinna tudd na can wa aatu nisaa sadaqaatihinna nihlatan tudd na seede wa ashhidu daway adlin minkum su ko defee nag yooya ñu déggee ci baat buy tekki kon lu ñuy seede rek am na kuñ koy seedeel kañ koy seedeel nag mooy kay ñaan ak kañuy may loola lépp fu ñuy fasee am na ku ñuy fasal kañuy fasal mooy ki nga xam ne nangu na liñ koy fasal ak ki ko koy fasal kon ci man ci mantuqul quraan ci ñett yooye ci lañu déggee ca mafhum siira ba muy baat buy tekki may nañ la yow tamit nga ne nangu naa li ngeen ma may kon sëy ci ñeent yooyu dong ci lay mën a wéree kilifa nag moo ca jiitu kilifa googu alquran dana wax ak moom ci lu bari di joxoñ kilifa ya nga xam ne ñooy takki sëy ya ñooy maanaam maye Euh, lañu ñu yilif ñooña alquran njëkk na leen dànkaafu ne leen su ngeen ni maye maye leen ku mayewu bu leen mayee seen doom jile wala seen mbokk mile fekk mi ngi ci buum ak sëy jabar jàmbur kenn du ko maye ci waxoon naa la ko wal muxsanaatu ca waxoon naa la ko ca minal muminaat ñaareel bi booy maye bu leen mayee ku nekk ci yedday jàmbur ku jëkkëram génn àdduna muy ténji ñeenti weer yaag fukki fan yi jeexagut kenn du ko maye bu kenn ñëw ci yow tamit di la gaaral di wax a wax wax ba wax ja leer bu muy tekki ne yow moom ngay xaar moom tamit yow lay xaar ku jëkkëram fase muy yeddawu yedd ja jeexagut kenn du ko yëpp lislaam ma cay dànkaafu kilifa ya bañ nag lañuy maye ñi bañ a maye ku mayewut ñaareel bi tamit moo xam kooka di yeddawu ku yeddawu ci dereet la fase nañ ko feeg ñetti dereet yi jeexagut bul ko maye kooku alquran wax na ko wal mutallaqaatu yatarabasna bi anfusihinna salaasata quroo in su fekkee ku yeddawu ci weer la te mooy ñetti weer ci weeri weer feeg ñetti weer yi jeexagut kooku bu ko mayee kay yeddawu ci weer nag ñaari jigéen lañ mooy ku ki gisagut dereet ngir ak ndawee ñi fase ko walla ki gisatut ngir ak mage ñi fase ko ku mu ci ñaar ñii bu yeddawu ci weeri weer lay yeddawu mooy ñetti weeri weer su fekkee ne nag xamutoon weeri weer di ko ca konte ñetti fan weeri fan lay yeddawu fanweeri fan ba mu jeex mu defaat fanweeri fan defaat fanweeri fan muy juróom-ñeent fukki fan foofa nag gor ak kudul gor ñoo fa yem fase nañ la gisagoo deret ngir ak ndawe wala gisatuloo ngir ak mage gor nga ak kudul gor muy ab kuñu moom di ab amatu dib jéebéer ñoo ca yem képp ñetti weer rekk la ñuy yeddawu fase nañu la yaa ngi eh, an loo ànd ak te mooy li ñuy tuddee ab ëmb kenn amul droit di la may lu dul nga teqalikoog li nga taqoog moom la alquran ne wa ulaatul ahmaali ajalahunna an yadaxna amlahunna foofa tamit nag gor ak jébéer ñoo fay am àtte comme dafa ëmb daal yedda ja mooy teqalikoog li mu taqoog rek ci gor bi ak ci jébéer bi ñoo fay am képp su ko defee nag loolu mooy àttee ñi bàyyi ko ci xel fekkee ku jëkkëram génn àdduna la ñeenti weer ak fukki fan loola nag buñ ko waxee mooy buy gor su fekkee safaan bala ñaari weer ak juróomi fan moom la alquran ne walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashran foofa kon loolu la muñ bu ci tegu tamit su fekkee jëkkër gi dafa génn àdduna fekk mi ngi ëmb kon kooka moom dootul compter ci ay fan wala ci ay weer yeddam ja daal mooy teqali koog ëmb ba rekk même bu jëkkër ji génnoon àdduna tay tay moom tamit gannaaw ba mu génnee àdduna avant ñi koy sang ka sang mu am doom ca tay tay ca bis booba mooy yeddam ja jeex na ca bis booba bu gisee jëkkër mën naa sëy foofa tamit gor ak kudul gor ñoo fay am atte ku sa jëkkër génn àdduna nga ëmb sa yedda mooy sippi li nga ëmb mooy teqalikoog li nga takkook gor nga jéebéer nga ñoo am atte foofa waaye bu ñuy wax ñeenti weer ak fukki fan mooy ko ëmbul euh, lenn ci fuqaaw yi sax dañuy wax ne bu dee ab jéebéer ku ñu moom la yeddaam ja ca jëkkër ja ëmbul bu gisee wenn reegal rek ñu ne set na mën naa mën naa sëyi su ko defee nag su fekkee gisul régal kooku ñaari weer juróomi fan moom lay yeddawu kon yow mii di kilifa gi war a maye kiñ la yilifloo bul ko maye ci yedday jàmbur bul ko maye mu fekk tamit mi ngi nekk jabari jàmbur ñetteel bi tamit bu nekkul jabari jàmbur bul ko maye mukk te fekk ki nga koy may duut ab jullit moo xam kitaabi yu la bul ko ko may di njaboot ak yonentu yàlla Musaa gi wala ñi njaboot ak yonentu yàlla Isaa gi ñi gën di leen askanalee ci ay yahud ñii ñu leen di askanalee ci ak nasaraan euh, loola yëpp donte ca làng wala maanaam duñ leen may soxna bu dee ab musurik la la muy jaamu téere musut caa wàcc moo xam jant la moo xam weer la walla nag la wala safara yeneen yu kenn xamut lay jaamu ngir ak ak manquéem kooku tamit kenn du ko may jabar moom la alquran ni wala tunkihul mushrikina hatta yuminu kon foofa yàlla ngi wax ak kilifa yi eh, ñaareel bi tamit yow mii di kilifa gi eh, booy maye sa doom jile sharia jàpp na yaay kilifa ngir mar koo mar koo maye maa ngi lay bàyyiloo xel ci sa yii man ngaa bank sa baaraam sharia tudd ko bul ci maye yooya sharia du ko daganal bul maye ca doom ci sa yëpp contrat sa yëpp contrat mooy dañu affecté waa ji ndakaaru wala ñu affecté ko ndar mu war faa am ñaari at wala ñetti at bëgg a ñëw nag ne may ma sa doom ji fii ak ñetti at wala par par juróomi at ngeen signé loola kooka xaraam na ci mbooleem ulamaaw yi nañ boobale sëy benn xaaj bu ñu tuddee ahlu chia rek ñoo ko daganal waaye sëyab contrat xaram na daganoon na nag ci njëlbeenu lislaam keroog ba ñu demee ba xaybar ci la ko yonantu bi xaraamal ci ndigalal boromam ndax wa maa yantiqu anil hawa ñi demaat mu dagan mu demaat ba ci kanam ñi dem ba fatxu màkkata li ko dore foofu yëpp xaraam na ba fat fatxu màkka mu daganaat gannaaw ga nag avant ñi génn fatxu mu ngi génn màkka décret bi koy xaraamal wàccaat ba péncam yàlla dootul daganati kon nikaaxul mutaati dafa xaraam shafii moo tax daana wax ne xawma ci lislaam lu daganoon ba ci kanam mu xaraam xaraamaat ba ci kanam mu daganaat jàllar bi ku door a xaraamaat ba ba péncam yàlla dootul dagadati mu ne man jànguma ko ci lislaam lu dul nikaaxul mutaati nikaaxul mutaati boobu li ko xaraamal ay xadiis yu bëree bari la am na ci xadiis yoo xam ne maanaam buxaari yu ak muslim yëpp ñoo dëppoo ca solo ko xadiis ga loola xadis la boo xam ne boo demee ci saxiixul muslim fekk ko ca nga fekk nga dem ca saxiixul buxaari fekk ko ca yonentu baa ngay wax ne naha an nikaaxil mudoati wa an luxumil xumuril ahliyati zamana xaybar kooku mi ngi bokk ci xadisu ali ibnu abi talib moo ko jëlee ca yonontu ba sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci buxaari yu ak ci muslim yëpp da ko ca fekk Aliou moo wax na yonentu bi tere na sëyëb contrat comme ni mu teree lekk yàpp mbaam yi nga xam ne ko kër la su boobaa bax la dugg na mbaam mi dugg na fas yi tamit dugg nañu moo tax lekk fas ak baax la mbaam yi ci mazhabu imaamu Malik dafa xaraam waaye nag boo demee ca chaafiiyuuna ya ñoom dañ ne lekk fas ak mbaam daganal nañ ko amal nañ ko ay tex ca seenam ngir waaye lu ci mun di xam daal xadis bii di xaraamal lekk yàppu mbaam kër ak lépp lekk fas yi seen yàpp wa ak li ñu tuddee nikaaxul mutaati muy sëyëb contrat ñoom ñooñu ñoom ñaar ñooñu ñoo bokk même décret boo xam ne moo moo wàcc ci ñoom ca xaraam nga ci benn jamono ji ca xaybar ñaareelu xadis bi euh, timit bi maanaam maanaam ñaareelu xadis bi euh, boo demee ci salmatubnu akwa maanaam moom indi na xadis bi mu ne maanaam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nañu nikaaxul mutaati lu man ñetti fan rek ci ama aw tash gannaaw si gi mu tereñu ko ci nga dégg mu ne raxasa lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi mutaati nisaai ama aw tash thalathata ayamin thumma naha anha beneen xadis bi boo demee ci subratul juhniyu ah mu ne yonent bi xeex na moom moom sumratu moomu subratu moomu moo ne moom xeex na ànd ak yonent bi ca fatxu màkkata ñi sax fa fukki fan ak juróom yonent bi digal ñu ngir yàggaay ga fukki fan ak juróom ngir yërëm saxaaba yeeg sori giñ sori seen soxna yi ci diira fukki fan ak juróom mu yorombal leen nikaaxul mu mutaati ne mën nañoo takk soxna foofa ca màkk kuñ bëgg sa yëpp contrat Euh, moo moo kon moo waral kon gannaaw bi mu xaraamee ca xaybar mi ngi mujj daganaatee ca fathu makkata waaye gis nga xadis bu mu ne bala ñuy génn makka rek yonentu bi xaraamalaat ko euh, boobu xadis subratul juhni yu moo ko wax moom moo wax ne annahu xaza maa rasulillahi salaa sallama fatha makkata qaal fa aqamna biha xamsata ashra yowman fa adina lana rasulullah sallallahu la wasallam waaye nag ba xadis bay jeex mu ne falam axruj xatta xaramaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam man daal avant ay génn dëkk ba rek euh, maanaam yonent bi xaramal na sëy booba su ko defee kon nag yooyu lenn la ci ay xadis yuy tegtale xaraam maanaam sëyëb contrat am na ci yeneen riwaaye nag yeneen yu ca wàccaar yu duhut yooya euh, bokk na ci riwaaye bii nga xam ne yonum tooy wax ne yaa ayuhan naas inni kuntu adantu lakum fi l min an wa inna allaha xarama dalika ila yowmi alqiyaamati kon loolu yonentu moo ko wax mu ne yéen nit ñi maa leen digaloon de ngeen Euh, maanaam bànneexu ci jigéen ñi teg ko ci contrat waaye maa ngi leen yëgal ne sama borom xaraamal na ko ci yéen ba péncam yàlla dootul daganati kon nag lislaam noonu lay demee yàlla mooy médecin wu médecin yi léegi-léegi dalay jox garab nga di ko utilise ba ci kanam mu ne bàyyi ko bu baaxee tamit baaxatut ci yow nga bàyyi ko ba ci kanam mu ne la waaw mën nga koo jëlaat nga dem ba ci kanam nag mu ne la bàyyi ko loolu day am loolu mooy indi nasku yi ci alquran moo tax mu ne maan sax min aw nunsiha nati bi xayrin minha aw misliha gisuloo yàlla moo ñu joxoon benn médicament wu julli jublu baytil mu baytil muqaddas ba ñu ñëwee madinatul munawara ñii julli di fa jublu diira fukki weer ak juróom benn ñenn ñene diira fukki weer ak juróom ñaar mujj gi rekk yàlla tere ñu ko ne bu ngeen di julleeti jublu leen kaabatal musharrafa comme na ngeen ci daan jubloo ba ngeen nekkee màkkata fekk gàddaay la gu leen woon su ko defee kon nag moo tax mu ne fa walli wajhaka shatral masjidil harami wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu demeet noonu la noonu la baree ci lislaam loolu nag mën nga koo xiyaas ki ji jamono médecins yi nga xam ne seen xam-xam sax dafa limité wu man ngaa dem ci ab médecin mu def loola analise ba mu defee analise gis na jàngoro ji mu bind la benn médicament nga commencé di ko utiliser ba ci kanam mu ne la bàyyi ko mu bind laal la beneen nga jël booba di ko utiliser ba ci kanam mu ne la jëlaatal bi nga njëkkoon a jël waaw kon nag ñooñu nga xam ne seen xam-xam dafa limité wu euh, su boobaa nag comme ñooy def loola ñi ci jël ñi ci gis ay résultats. yàlla mi nga xam ne xam-xamam limité wut alimul xaybi wa shahaada la kon dëgg-dëgg fu mu la joxoñ ne la defal loola rek maanaam nanga nga def loola waaye bul def rek la mushrikuuna yàgg ah, munaafiquuna yàgg ah, yahuud yàgg nasaraan yu mel noonu daan weddi naan yonent mi daal kenn xamul lan la tey bu teyee mu ne weex na boo liggéey mu ne ñuul na te mooy foll yooya rek doon xew ci lislaam koo xam ne bu ne weex na yàlla ne tàll bu ne ñuul na yàlla ne kukku waaye bu ne la bu ne bu ne la weex na kay ma bu ci teg benn baat kon maanaam noonu day am ci lislaam texte yoo xam ne day dagan ba ci kanam mu xaraam euh, dootul daganati mukk am ci yoo xam ne dafay xëy rek xaraam am ci yoo xam ne dafay dagan xaraam daganaat door di xaraam loolu bokk na ci yi daganoon ba ci yi nga xam ne dafa xaraamoon ba ci kanam mu dagan euh, ziyaaratul qubur ci njëlbeenu lislaam sa waajur génn àdduna wala sa mbokk wala ku mun di doon nga tiim bàmmeelam ba ne yaa ngi koy ziyaara dafa xaraamoon mutlaqan boo ngi demee ba ci kanam nag ba nga xamee na ni rooxu yi màndi nañ ci jaamu yàlla ak wéetal ko sopp ko ba duñ jaawale teeg ak leneen wala ñuy jaawale teeg ak keneen yonantu bi nag ne ci sama ndigalal boromam laay waxee dagan xaraamoonaloon nañ ci yéen siyaara ji bàmmeel yi waaye bis ni ki tey dem leen ngeen siyaara ji bàmmeel yi texte bi ñëw ne kuntu nahaytukum an ziyaaratil quburi alla fasuruha tere woon naa leen ziyaara ji bàmmeel yi waaye léegi mën ngeen a dem ngeen siyaara ji ko ndax li ko waral mooy bokkaale gi nekk ci lislaam lépp tey ci wutal yàlla ay ndend ci samp ay xërëm di ko jaamu ba yonoon toog boppam ba muy ñëw màkka rek fekkoon na fa ñetti téeméeri xërëm ak juróom-benn fukk ak ñett ñi ñoom ñi gëmoon ne benn yàlla rek mënta xam soxlaay mbindeef yi soxla bu nekk ñu wutal ko xërëm ak boppam mu yàllaay boppam xërëm goo xam ne dara du problème lu dul problème mu sëy yi ku bëgg am jëkkër foofa ngay sukk gannaaw bi mu ko waree ñaan koo torox ko mu may la jëkkër am boo xam ne ku bëgg problème mu jabar am koo xam ne ku bëgg a liggéey am ci xiram goo xam ne ku bëgg a tukki am ci boo xam ne ku feebar pour bëgg a wér am ci boo xamee ne nii kuy yóotu loo bëgg a jot wala muy dàq loo xam ne danga bëgg mu sori la noonu lañ ko doon càmbaree ba soxla ya mat ñetti téeméeri soxla ak juróom-benn fukk ak ñett tombeeg juróom-benn fukk ñetti téeméeri yàlla ak juróom-benn fukk ak ñett yonentu bi ñëw ne maa ngi leen di woo ki jenn yàlla rek joo xam ni su ngeen ko amee dana doy walis lépp lu dul moom te moom mantu day walis dara li ngeen bëgg ci lu wut yàlla moom mat na ci moom lu ngeen xam ci lu baax ci wiiw mu dencal leen ko lu ngeen xemeem di leen ko ñaanal mu fajal leen ko lépp nu ngeen nekkee fu ngeen man di nekkee xam-xamam hegg na ca kon kooku dong ci laa leen di woo loolu moo waral mu ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufaan ahad demeet ba loola jeex loolu nag muy xërëm yi ñi sampoon yëpp seen kosaan la mi ngi soqeekoo rekk ci bàmmeel yi mooy ne ñi njëkk samp xërëm di ko jaamu nitu yonentu yàlla noox ya dañoo demoon ba nga xam ne seen nit ñu baax ñu yàgg ña dem nañ ba màndi ci seen xol yi mëntuñ leen a muñ ñu jël seen jëmm ya yett ko samp ko ci seen bàmmeel ya ñëw nag tabaarakallaahu eh, di leen ni ziyaara si loolu mi ngi xewoon ca gannaawu nit eh, maanaam aadama yi booba noox ñëwagut bi nitu noox yi ñëwee nag gis xërëm yu samp yooya ñoom tamit xamuñ lu taxoon ñu leen jiitu woon sapp ko ñu mujj ñoom nag di jaamu loola eh, léegi nag kon loolu nga dégg mu ne laa tasarunna alihatakum wala tasarunna wuddan wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nasran wa qad adalu kathiran yooyu yëpp loola moo ko waraloon su ko defee nag moo tax bi yonent bi yàlla yónni ko ci wéetal eh, yàlla eh, jéem a jëmbat xol yi eh, yi ci wéetal yàlla lépp luy waral ñàkk wéetal googa rek mu dégaase ko ne bu kenn demati ci bàmmeel yi di leen siyaara ji ndax mbooleem problème mu bokkaale gu ñu mun di dal ci lislaam mu ngi soqeekoo rek ci euh, bàmmeel yi ñoo ne doon leen siyaara ba ci yàgg mëntuñ koo muñati ñi yett seen jëmm ya samp ko ñooña bañ demee ba raaf nit noox ya ñëw xamuñ la taxoon gaaya yett xiram ya ñu mujj ñoom di leen jaamu loola niti euh, maanaam saalixu ya ñëw ca loola continuer ca niti luut ñaak seen góor jigéen ya continuer ca niti Muusaa yaak nit yi yonentu yàlla ibrahima yaag ndis nga ko baayam ba sax yaroon ko di asara fi mu jaar ak xërëm ba daan ko ko yettaloo di ko ko doon jaayloo ji bu demee ba sori rek daane ko mu mujj màbbu mu ne ko danga ngaa lambu yaa ngi nii ndax boobu daan jaay day wax ne ah, maa ngi jaay lu kenn bëggut maa ngi jaay lu amul njariñ maa ngi jaay loo xam ne maanaam ñàkk ko jënd moo gën jënd ko loolu ku ko wax ci sa marchandise du du jar maanaam te booba moom loolu la bëggoon ngir ñàkk jarga su ko defee kon nag maanaam loolu ci la nekkoon andi ko ak lépp loo xam ne ni aju na ca ca wàllu xërëm ya moo tax mu tere woon ñu ziyaara ji bàmmeel yi ba mu demee nag ba yëg ne roox yi màndi nañ ci wéetal yàlla xool yi tamit tàmm nañ wéetal yàlla gi cër yi tamit tàggatu nañ ca mu ne kon nag dem leen ngeen ziyaara ji bàmmeel yi ndax dangeen ci ki jëlee dëddug àdduna da ngeen ci jëlee fàttali ko ak dee ndax boo demee tiim bàmmeel da nga fekk koo xam ne booy jaay alal moo la ko xëppale woon fuuf booy jaay ndomba tànk moo la ko xëppale woon booy jaay taar moo la ko xëppale woon booy jaay kartan moo la ko xëppale woon booy jaay loo mën a jaay moo la ko xëppale tey nag dee na mënul dara xar nañu suuf si suul ko ca tabaarakallaahu loola lu sa xol dëgër dëgër dana am lu muy def ci yow da nga ca jëlee da ca jëlee fàttali ko àllaaxira loola muy nekk nag ab julit da koy jëriñ ab julit du dañ mukk di soxla lu koy fàttali àllaaxira ab julit dañ mukk di soxla lu koy taxa gën a dëddu àdduna yonentu bi ne kon nag yëg naa ne ñaar yii ma nga ca dem leen ngeen siyaara ji euh, bàmmeel yi kon tamit xatte boobu ma wax la ko ci taxwilul xiblati wax la ko ci maanaam siyaarajul siyaaratul qubuur tamit loolu moo walaabul ci nikaaxul mutaati ci dagan gim njëkkoon a dagan mujj gi mu xaraam ci xaybar jàllar bi ko daganaat ba fatxu ma maanaam mu jàllar bi ko xaraamaat ba fatxu màkka ba fatxu màkka jotee nag mu mujj xaraamaat ba péncam yàlla dootul daganati su ko defee loolu euh, boroom xam-xam yi dëppoon nañ ci ulamaawu chia rek ñoom maanaam ñoo ñoo ñooy ñooy daganal ci wàllu tabaarakallahu lu ñu tuddee nikaaxul mutaati moo tax boo demee ca bi yu mu ne ay riwaayaat yu bëri dëppoo nañ eh, tabaarakallahu ci jamono ja muy dagan waxoon na ko ak yi nga xamee tamit gannaaw si gi dafa xaraam loolu mu ne riwaayaat yi ci ki dafa bëri yoo xam ne salaf ak xalaf yépp bokk nañ dëppoo ca xaram nga su boobaa nag képp kuy gestu jëm ci di ko daganal ci rawaafid yi yow maanaam euh, bu ca bu ca bu ko gestu imaamu Shawkaani yi boo demee ci naylul awtaar wax na loola wane ne daal nikaaxul mutaati dafa xaraam borom xam-xam yi d'accord nañ ci kon na nga tënkuwu ci seeni wax waaye bul ànd ak koo xam ne dafay nangu walla muy Euh, maanaam wax ne maanaam nikaaxul mutaxat yi mën na mën na nekk su ko defee kon nag yow kilifa gii charia may la nga mën a maye sa doom bul maye sa doom ci nikaaxul mutaxat comme ni ma la waxee woon ne bul may sa doom mi ngi bëgg alal ku dul jullit bul ko may koo xamee ne nii ab tubaab bàyyee koo fële ñëw naan nangam ak nangam euh, dafa dafa bëgg a tuub pour may sa doom ji koo xam ne la ko tax a tuub mooy soxna si yàlla taxu tuubam nga wérut ndax soxna see tax bu taxutu na soxna sii mu bëgg a takk du tuub mukk kooka dëgg-dëgg boo ko mayee sa soxna sii man nga caa jëlee bàkkaar bu la mën a yóbbu safara te su boobaa boo ci yaakaaree intérêt àdduna te mooy kër gum lay gëndal ak wala wut passeport yóbbu sa doom jeeg yooyu yëpp mu dem di la yónnee ay dépense li ngay lekk lépp ay xalu safara la ndax mën na la ko jural ëllëg ci yowmal qiyaam te nag ñi dëkkee ci yi ci yenn dëkk yu bari maanaam jël seen doom yi may ko tubaab yi te wër na leen ne tuub gu ñu arrangé dong moo ca nekk waaye du tuub goo xam ne gu wér la tuub nga mënoo sangu jana ba ñu ne tuub nga doo julli waaye nag fexe nañ rek ba jëndal ab xaftaan ñaw ko ñaw sénégalais nangam ak nangam mu commencé dem di ko présenté mbokk yi jublu ci pour tuur leen lëndëm pour sàngee leen ko dama ne yàlla kenn mënu koo nax man ngaa jéem a nax sa bopp mën a jéem a nax say mbokk waaye yàlla moom am njàccaar la mu kenn mënta ndax mooy alimul xaybi wa shahada kon su boobaa loola bari na lool moo tax génn góor daal ba sa mos a toog ba waaye ñëwee ne ko man da tubaab bi dafa bëgg sama doom ji waaye nee na tuub na mu ne daal nañ ko dugal néegab góor ñu ko dugalee néegab góor nag ci laay mën a nangu nangu tuubam gi dañ ko waxee tubaab bi ne moom xalaatu du dugg néegab góor mu nekkoon kii tuubam gi wérut su ko defee kon nag yooye da cee jar a bàyyi xel ku ñëwati ne la dama bëgg sa doom ji wala damaa tuub pour takk sa doom ji nga ne ko dañ ko dugal néegab góor bu ko dugg néegab góor ba jaralee rek loola mën naa firndeel ne kon tuubam googa ca lislaam ga jaral na ko ko bala ngaa gis kum jaral nag yaakaar naa ne boo yoroon dàlli weñ da nga dox di ko doxee ba mu ràpp te doo gis ku mel noona kon nag yéen ñi may déglu dëkk ci dëkk yi nga xam ne bëgguma koo tudd waaye yéen xam ngeen ko ñi may déggu xam ko ñoom ngir yàlla bu leen jëndee seen intérêt àdduna bu gàtt bi ci njëriñal àllaaxira lu yaatu loola euh, dëgg-dëgg na ngeen doyloo yàlla yàlla leen yore woon njëkk seen doom yi juddu euh, su ko defee kon nag dema dema dem ba sa doom ji toll ci fi ñu koy bëggee nga naan dama yaakaar moo may yore dëgg-dëgg loolu gàtt xel la loolu tamit yab yàlla la loolu tamit ñàkk xam sa bopp la ak ñàkk fonk sa lislaam la te ñu ci bëri tey ñu ngi bàyyi seen doom ya ñi ànd ak tubaab yi ñenn ngi ci gën a sàggan sax tabaarakallaahu sëy nekkut fa bu fa sëy bee tamit ñuy wax sëy tuub ak arrangé tamit ba tey sëy nekkut fa ñuy àndi lambar lambar jëm ci hôtel yi léeg-léeg mu yónnee ko bi mu dem fekk ko ca bitim réew nga jël sa bët di ko ca tege yore sa kurus naan yaa ngi yore sa kaamil di jàng yow mooma li ngay jàng ak li ngay yépp dafay soppeeku lu lay rëbb ndax lu lay tere loola mi ngi ci alquran boo ko jàngee alquran rëbb la mooy la yonent bi ne woon rubba qaari'in wal quranu yal'anuhu kon nag gëm leen yàlla ngeen jël seen doom yi may ko doomi soxna boo ëllëgee ñu jural leen ñuy faj soxla waaye su ngeen jëlee seen doom yi le xañ ko doomi soxna yi bëgg koo may ñuy faj soxla rek su bu ëllëgee tamit doom ya ñuy jur dañ leen di fajal ay soxla su ko defee kon bàyyi leen sëyu intérêt yooya ci tubaab yi nga xam ne bëgguñu yonantu bi bëgguñu lislaam waaye dëgg-dëgg seen doom yooya dong la ñu soxla tabaarakallaahu yàq seen avenir sànni leen su ko defee loola lépp yow nga sànni xewale ci sa lislaam bi ñàkkaale ko ci yàqule ci sa njaboot yàqu ci boo lëggee mu jural la safara dama ne loola dara jarut ko ci àdduna bi sa doom bu ca bëggee dem sax nga ba nga tere ko mu nar a bañ boo xeeboo nga dogoog moom wan nañ yonentu yàlla noox dogoo nag doomam ju bon jooja di kanaan ndax doom li leen lëkkale boo nekkee ku baax mooy jëf ju baax rek bu fa jëf ju baax neexatul nag maanaam innahu amalu xayru saalih su boobaa dara neexatu fa nga ko rek te dese yàlla soo lëgee nga yëgal ñëpp xam ne lii neexut la woon yàlla xam ne tamit lii bëggoo ko da nga amul pexe bu mbugal may wàcc ci moom dong lay wàcc waaye nag nga d'accord ci mu lay yónnee léegi-léegi mu woo la téléphone jox la ay numéro yu gudd nga jël sa passeport wala sa identité dem tiire ji indi sa kër gi da yokkaat kook tabax kook def nangam lépp taxalal jooju xamoo lu mu fu mu bàyyi fu mu bàyyeekoo la ci soqeekoo loola lépp yaa ngi jënd sa kër ak safara kon loolu nañ ko bàyyi xel kum ci daloon na nga tas sëy ba te yemale sa doom gi sa bopp kum ci dalutoon na nga ko nanga ko wan gannaaw te sori ko bañ jëf ju bon jooju nga di ko def kon nag kilifa nga waaye booy kilifa mayal ku mayewu bul may sa doom yi ñu dul jullit bul may sa doom yi koo xam ne dafa tuub tuub ak enrancé kese ñu solal ko xaftaan muy lëgër lagari gëmul dara ci lislaam bëggul yonantu bi xamul nit ñi sangoo janaba waaye sa doom jee ko tax a dugg ci lislaam tuub ga dafa yéex dema dem ba bëgg a sa doom ji dóori tuub di yàlla kon li foofa tuub newu fa caaxaan rek a fa ne loola moo tax yàlla ne wala tunkihul mushrikina hatta yuminu texte la bu leer ci alquran muy wax joo xam ne kenn mënu koo toxal kon nag lu yàlla tere boo ko defee bëgg caa nuur ba dee ca dem sa dem safara yóbbaale si doom yi safara te alquran nee na qu anfusakum wa ahlikum naaran kon nag teg leen seen baaraam foofa yéen kilifa yu may déglu ma continuer ak ci sëy yi nga xam ne gannaaw bi nga nekkee di kilifa timit nag lislaam dafa lay tere nga maye ci sa doom ji may kilifaam waaye duhul la nag ku ne mën nga koo may lu ne mën nga caa maye déedéet dafa am nag sëy bu sëyuwu sëy bu takku bu ñuy mën a maye am boo xam ne tamit duñ ca mën a maye dinaa la euh, ñëwal loolu lu mel ni sëyëb baara yëgoo duñ ca maye lu mel ni nikaahu sigaar duñ ca maye lu mel ni nikaahul muhrim yi koo xam ne dafa xarmal duñ ko may jabar koo xam ne tamit da nga ko vérifier am na lu ëpp ñeenti soxna yoo xam ne gor lañ kooku lu mu bëri bëri alal lu mu am am daraja deesut ko may soxna loola lépp boo ko defee dangay ngay bokk ca ña sukkatal mooy yàlla ga ca loola te loola lépp mën na laa dugal safara kon nag ngeen topp ñu ëllëg ci waxtu wi wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.